Sénégal mu ngi mooy beesal Sénégal ñun de moom la ñu àndal. forage su Baylat si quartier Daaru Khoudoss bu Touba dalal nañu démb mouvement bii di ànd dooleel Abdoulaye Sylla si élection législative yi la ñu dëgmal. ànd beesal Sénégal di moom la àndal. mi ngi nii yéen ñëpp xool leen ko moom la ñu àndal noo ngi amoon àndal mi ngi nii. ñoo ngi leen di siyaara nag waaw di am mbégte ci yéen bu baax a baax a baax seen teewaay rafet na parce que sëñ Massamba Mbacké dañuy ñaan nag ngeen jàppale ñu bu baax. waaw ngeen jàppale ñu daal leen bëgg jàppale sunu maire bii ñun moom leen àndal léegi nag sunu koñ bii tim mi ngi taa ndox di di xuus siburu bi bari na feebar bi bari na torop sunu xale yi ñëpp a nga hôpital maire yi tim ku war a toog it mënatoo toog maire yi màggar yi parce que ñooy dugg ci yi jéggi ndaw ji ñëpp a ngi tëdd ndax sunu mbedd mii moo am ndox yooyu dund nañ ci yooyu maga fi nekk ñépp feebar nan gis ngeen mbedd mi ni mu mel ba mu feree yàggut ngeen ngeen jàppale ñu seet waaw ñu jàppale leen bu baax ñun lu moom fu mu ànd moom lan ànd bu soobee yàlla fu mu taxawee danañ fa taxaw bu neexee yàlla suñu borom. yow loo bëgg ci kër gi danga ko am te dunoo bëgg nag ku nu jàppale ku nu jàppale nu bëgg nu jàppale leen ñii de ku ci ne yaa ngi ak sa identité koro àjjuma ñëpp laa ñëpp laa leen seen identité ñëpp andi woon seen identité def ko nii waaye nag yàlla dugal lii. ak si burusi ak ndog-ndog yi waaye da nga fekk loo xam ne kon dana buur sa bët waaye nag bun nu sañoon nga jàppal nu jàppale la ndax nun sonn nan am na ñoo xam ne seen loxo jotu seen gannaaw am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a liggéey tum amuñu luñ liggéey yaa ngi dem di jënd nun ñaaw ngi nii gis nga nun jigéen ñi leget gee lan yor ba bi àjjuma ba dimanche nu def ay ñaar fukk ay juróom fukk bu nu eggee sotti kenn kooka dem ca marché bay di jënd jaay xam bu nu amoon ku nu jàppale danañ dem. waaye nag dunu amut ku nu jàppale te noo ngi yaakaar moom mii dañu yaakaar nañ ci moom Abdoulaye Sylla mii ak yéen ñi nga xam ne yéen a ànd ak moom ak Mbacke bala yi nga xam ne sa maam moo defar dëkk bi noo ngi leen di ñaan bu ngeen demee ngeen jottali nu ko nu ko dunoo bëgg ku nu jàppale lu nu liggéeyee leen bëgg sun caam yi sun doom yiitum dañoo bëgg ku leen jàppale ndax ko ci ne yaa ngi yor sa bitik di yëngu dunoo bëgg ngeen jàppale nu bu sabaan jàppan fii nag moom li ngeen fi bëgg lu fi man ne yaako moom ñang bu doon dante lu man di toll boo ñëwee yaa ko moom noo ngi leen di ñaanal rek luñ bëgg yal leen ci yàlla suñ Tuubaa dafa leen ko waaw ngeen jàppal nu dana leen jàppale ne ko de fii moom bu yeggee na xolam sedd na xelam dal lu fi ne dañ nag baala yaa ko moom boo gaar ñu fii gaarab oto nu duyal may identité ñang baala dinaa mu fees te boo yónnee woon tam ñëwu leen na nee leen maagam danoo bëgg nangam loolee dana la ko defal fekk la fa nga toog yi dëkkee si quartier bi di tàllal loxo bu baax a baax kii di Abdoulaye Sylla ngir mu jàppale leen ci seen ay jafe-jafe ñuy xamle nag ni ñoom benn jëmuwaay rek lañ am te pare nañ ngir jàppale ABS coalition ànd defar Sénégal comme que Abdoulaye Sylla mi ngi ci mbir mi yaakaar nañ suñ taxawee ci moom war naa mën a taxaw suñuy mbir te ñun loolu la ñuy ñaan gis nga ñii ñii dañuy taaba taaba rek kon nag dañ leen di sàkku maanaam ndimbal loo xam ne pour ngeen jottali ko yéen ñi nga xam yéen a fi nekk ndax ñu yéen lañ xam te yéen na gis te lii dafa neex nit jàkkaarloo di toog nga jàkkaarloo moom di wax muy dégg dafa yombul kon nag ñu leen di sant si teewaay bi di leen gërëm te di leen wax fii nii ne jàpp ne seen kër la dikk ngeen seen kër bu leen fi am dara leen naqari te li ngeen bëgg jàpp ne am ngeen ko waaye da ngeen fexew nag ba taxaw si ñun ndax son noonu lool nag ndax mbënd mi ba mu amee ba léegi bari na si koñ bi ñoo xam ne pour ñu am fu mu taal sax problème la toog bu lekk te bi kër goo dugg mën naa waat si ñu bari nga tëdd si te ndox mi rek ñu ko teg ah, micro bii si koñ bi amuñu ko ñu pompal amuñu ko ñu ŋàccal ndox mi day ñiis dong dem waaye kenn du ko ŋàcc oto taxawut fii ñaar ba mu commencé bi le te mbedd day ko ndox ba yàgg mu daan si biir ndox mi salte lool xam nga loolu mett na trop si dégg-dégg dafa mett sakku maa nga teg sa bët nga dëkk ak moom ñun daal ñu ngi leen sant leen gërëm te li leen sàkku ci yéen daal mooy ngeen jàppale ñu rek bu soobee yàlla li ngeen bëgg si taxaw jàppale leen ànd ak yéen si xeex bi nag jàppale ni yéen a ngi si biir de yéen ci jiit waaye jàppale ñu ñu ngi ànd ak yéen leen rek lañ ci ragal comme ñi fi jaaroon daan wax dañuy dem buñ paree rek buñ faloo dootu leen gis dootu leen dégg xam nga daa bari ñoo xam bu kee ba wax la ba dig la buñ xasee am lan bëgg boo leen gisatee élection la te jamono dafa paas dafa paas foofu su ngeen bëggee ne li ngeen bëgg mu gën a yomb di ngeen fexe fu ngeen toll di déggante ñoom di jàppalante ñoom wutal leen loo xam ne ñoom chaque jour buñ xëyee seen kees gerte seen kilibee léegi bu gee ñu yor sa leen koy def nga xam ne moom partage lay doon chaque jour yéen a xam ci li nekk ñoo xam ci li ngeen moo tax ñoom duñ bëgg si koñ bi boo waree dem ensemble dafay dem loolu daal la ñu sàkku ci yéen tey kenn mën a jàppale fii nii si ñii nii ñëpp kenn ko amal li mu boo ko ci jàppalee rek dana demal dana demal boppam gannaaw ba nu taataane seen ay kàddu ba noppi mouvement bi di ànd dooleel Abdoulaye Sylla si Touba si kàddu maam Góor Mbay mi yore seen kàddu ma ngay dalal xelu bu baax a baax ñiy dëkkee si diwaan gi di leen xamal ni Abdoulaye Sylla daal bu ngeen ko jàppale itam du ngeen ko réccu benn yoon soxna Maguette Loum ñoo ngi lay nuyu di nuyu mbootaay gi nga àndal ñëpp di leen nuyu ci turu Serigne Djili Niang ak sëriñ Abdou Khoudos Mbacke moom sëñ Cheikhouna moom sëñ Abdoulaat ci sama ndeyjoor ci ndigalul soxna Astu Mbàkke Gaynde Fatma di nuyu it Fallou Galas Silla parce que bi mu yëgee yëf yi jël na sit bi yëpp joxe ko ci ndigalam ni fu ngeen ko woo rek mu wuyu ngir bëgg liggéey bi jëm kanam Abdoulaye Silla nag jàppale ko yomb na yombul ndax nit la koo xam ni dafa bëgg a dem assemblée pour joytu lépp lu nit di jooytu ci quartier beeg fu mu mën a doon mu mën leen ko faa jooyal kooku ànd ak moom yomb na waaye nag dama gis ni ànd ak moom li tax mu gën ci yéen mooy moom sax da dut xaar assemblée ak ngeen di jooy parce que fukki at ci ginnaaw jooyu leen dara fukki at ci ginnaaw mi ngi yabal cinquante camions ak lu mat quinze pelle ngir di dindi yu mel nii Touba mooy dëkk boo xam ni trois millions de sénégalais ñoo fi yeewoo kon benn nit mënut lépp moom nag nee na segam li mu yéene Touba mënu ko bu sañoon dafay jóg dugg ci politique ndax bu doon def mën a yokk ay effort léegi nag dafa bëgg dafa bëgg a dem assemblée nationale bëgg faa am majorité le 17 te yéen da ngeen di voté léegi nag yéen yéen ay xool ba xam da ngeen di voteel ñi leen di dikk wala da ngeen di voté ñi nga xam ne dañuy jëf ci dëkk bi. voilà moom nag dafa jëf digewut te su ngeen ko jàppalee le 17 incha allahu amul lenn lu muy xaar ci seeni mëbët te bu dee ci mbootaayu jigéen ñi am na yéeney lu toll dix mille mbootaay ci Touba mu dimbali leen maanaam fukki junni mbootaay bëgg na leen a dimbali waaye bu karagee it ngeen xam ne ni sëñ Jili Ñang mii ñëwee ci yéen ak sëñ Abdou Khoudous ak soxna Astou Gaynde ma lépp lu muy def. bala caa kenn jot yéen ñi nga xam ne yéen a ko jàppale yéen a cay jiitu ndax moom nit la koo xam ne ndimbalam ki ko jàppale dana ci jot ki ko jàppalewut dana ci jot waaye bu kerogee sëriñ jiili mii moo leen fay teewal lu muy def ci yéen la koy njëkkee am na ci yéen yéene doomi dëkk bi la barabu sëñ Fallou def na fa un milliard sëñ euh, ni ko sëriñ bi waxee sëñ Sidi Mokhtar def na fa deux milliards Masalikul Jinaan def na fa deux milliards kooku su nee jigéeni Touba maa leen di dimbali ci sama wërsëgu bopp ñu war koo gëm waaye yëf yi sax yamut fii lenn it na ngeen ko xam jamono dafa demee noo xam ni euh, su ñëwee fii ngir bëgg ngeen jàppale ko su la dissetee ca ngoon dina xam ndax jàppale nañ ko wala jàppalewuñ ko yéen it élection yi day ñëw di ñëwaat su leen jàppalee da ngeen ko xam ndax dana fi ñëwaat su leen jàppalewul da ngeen ko xam kon léegi politique dafa demee noo xam ne kenn mënul nax kenn te it ngeen xam ni muy sëriñ Jili mii muy sëriñ Xuddoos mii muy Soxna Astu Mbàkke ku mën a doon pour wax la ni Ablaay ko jar a jàppale ñun ñii ñëpp kenn ku ne sa oto bopp ngay taal ak sa gasoil def ci ay moyens loolu nag dara waral lu ko ludul jëf gi muy jëf ci tuubaate xaaru ci kenn ndax ñun dun ay dof politiciens yii day diggee mënuñu ñoo yendal fenn ñii ngeen gis ni yéen a ngi leen di door gis ci politique li ko def nag mooy dañoo wóolu ki àndal du leen nax na ngeen takku la 17 soxna Mbaye yéen ñëpp ngeen ànd voteel ko ndax bu demee ba la 17 ca ngoon bu ko waa tuubaa naxee dina ko xam buñ ko jàppalee dina ko xam te moom de man na maa waat ci sëñ Touba ni su fekkente ni le 17 am na majorité amut dara lu muy xaar fii ak trois mois ngeen commencé gis effet ci li muy def. jërë ngeen jëf kon ñoo ngi leen di sant di leen gërëm dañu war a dem ba Touba beleel jërë ngeen jëf